Ousmane Sonko woote na pour mën a daje coalition bi fa jógee léegi li fa xew doy na waar. nag ci bi nga xam ne moom la ñu àndoon yëg ngeen ni barki démb génn naa sur la radio télévision sénégalaise RTS te nga xam ne délai yi dafa xat fii ak le 29 ñëpp war nañ déposé dégguñu dara ci li nga xam ne moo jógee ci coalition bi surtout ci tête bi mooy le PASTEF parce que ñun ñëpp dañoo ànd mais ñoom ñooy vraiment la tête de la coalition. xamuñ ci li ñu nekk ñu gis ñuy dox seen ndox ma génn lancer alerte def un cri de cœur. boobu moo ko defee ci le lendemain suba hier aljuma parce que tey c'est le 21 Ousmane Sonko woote na pour mën a daje coalition bi fa laa jógee léegi li fa xew doy na waar parce que nee na soxlatul coalition bi moom parti moo ko ñor ba mu ñu ko dimbalee bi mu mën a jàll bi ñu ne nekk président de la république te nee na élection bi di ñëw coalition bi nga xam ne yëfu ñëpp la woon soxlatu ko moom Pastef lay demee élection jël naa fa kàddu gërëm naa ko sant naa ko ci franchise am mu ñëw wax ko mais il a fallu que ma yëngal ko ba mu mën a génn ne wax ko ba ñi ñëpp mën ko dégg déception bu rëy la nag ci biir coalition bi ñun en tant que ànd góor yi jël nañ seen décision demal suñu bopp képp koo xam ne yaa ngi gis sa bopp ci li nga xam ne maître Moussa Diop mi ngi koy doxal waa AG ñi ngi koy doxal ci dëgg sa place mi ngi fii nga ñëw ñu ànd